ami chers internautes référence at yi dalal jàmm ci seen premier numéro ci at mu bees bi 2021 set set gannaaw bu ñu leen souhaité une année 2021 année de paix de prospérité ak de santé ma bàyyi nag sama naataango bi Sissoko mu souhaité les amis internautes. Euh, salaamaaleykum Omar maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu suñu internautes yi ñuy suivre sur référence actu euh, di leen souhaité bonne et heureuse année di leen ñaanal at bi ñuy dugg yàlla mbëbët yi. deux mille vingt bloqué woon. yàlla na sottee at bi eh, mu nekk atum naataange am na nekk atum sutura te lépp lu waay doon ragal rek yàlla dàqal ko ci. Euh, ñu wax ci quatre points yi nga xamante ne moo gën a fës ci semaine bi gis njëkk nag mooy levée de fonds bi nga xamante ne. le parti Pastef def na ko ngir euh, waajal seen euh, tournée bi nga xamante nañ koy def au niveau national mu juróon nag coow euh, diggante ak ministre de l'intérieur ba ñu gannaaw bu ministre de l'intérieur génne benn ba bataaxal di leen recommander di leen avertir ci fànn bu demee noonu ñu bàyyi la si soxoo nga détaillé article boobu. waaw xam nga dañu toog semaine passée waa waa Pastef di def seen nemmeeku tour hmm. nemmeeku tour. Euh, boo xamante ne dañuy def levée de fonds national et international maanaam dañuy wax seen i seen i euh, membre ak sympathisants yi nekk fii ak yi nekk bitim réew ñu ñu joxe seen participation boo xamante ne ñoom ci la ñuy doxalee seen i activité ci noonu samedi passé ñu def ñoom di di recueillir xaalis bi recueillir lu tolloog cent vingt cinq millions millions loolu lañ loolu leen recueillir euh, ñu dem ba ci biir si guddig samedi jàpp dimanche bi vers deux trois heures du matin affaire bu raar la ministre de l'intérieur génnee bataaxal euh, communiqué di leen di leen di leen di leen di ñaawlu loolu wax leen ni li ngeen di def nii teguwul ci yoon yoon da koy tere te boo leen ci Euh, euh, boo leen ci continuer mun nañ dem ba tas parti bi moom ba muy ñëw ba muy ba muy wax dafa sukkandiku ci euh, loi wu 81 parce que bu ñu fàttee ñetti loi ñoo wax ci ci ci ci ci ci dafa am. financement parti politique. Mhm. dafa am benn loi bu 76 boo xamante ni da doon wax ni ñiy participer si kii euh, parti politique yi Sénégal lañu war a nekk même bu nekkee Sénégal nekk étranger. duñ ko def. Mhm. mu ñëwaat 81 mu mu feddali la même chose. mu mhm. feddali la même chose mu amaat beneen changement. mais li li li ñu war a wax mooy. 81 76 boobu sénégalais yi nekkoon extérieur daawuñu voté. daawuñu voté léegi jamono ji sénégalais yi nekk extérieur dañuy voté. donc il faut que ñu méngalaat. waaw il faut que méngalaat pire. Euh, wax pire sax laa xaw ma beneen moo bu ma ci wax. mais lii am mooy dañuy voté ba pare dañ leen considérer comme quinzième région parce que am nañ député. Mhm. am nañ <laughs> am nañ député à l'Assemblée te du benn député la ñu am. Mhm. am nañ plusieurs députés yoo xamante ni c'est des gens de la diaspora boo leen boo leen ne dee leen voté mooy dee leen bokk ci activité parti bu ñuy bokk ci activité parti kon bokk doxalin parti war nañ ciy joxe seen seen i wàll donc kon pour man euh, coow bi coow bi mooy dañu war a méngale ak suñuy loi ak suñu jamono moo tax problème bi yëpp interprétation parce que interprétation bi gën a gii gën a lépp mooy dañ ko méngale amoon na proposition bu amoon bu benn doyen Mbodj defaloon Abdou Diouf en 98. Mhm. Aziz Mbodj mais mu mujjul fenn appliqué wuñ ko proposition rek la amoon pour loolu buñ ko defoon dina mun a régler coow bi mais. defuñu ko. est-ce que ne ministère de l'intérieur fu mu sukkandiku mooy maanaam jàpp nañ ni bu ñu bàyyee loolu jàll rek donc yeneen financement occulte mën na fa jaar lu mel ni terrorisme xam nga ni Sénégal wàllum Afrique de l'Ouest bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñi gën a xeex ci wàllum terrorisme est-ce que loolu ko bàyyee noonu rek ay nit yoo xamante ne ñu ngi jógee extérieur xamuñu yan mooy seen mbébét seen intention ñuy financer. bon man dama jàpp man Ousmane ko euh, quelqu'un qui veut être président de la République du Sénégal ak engagement bu ko xamal ak euh, réputation bu ñu ko xamal jàpp naa ni déjà man personnellement jàpp naa ni Ousmane Sonko du dugg ci loolu maintenant l'interprétation et est personnelle mm-hmm. et est personnelle dama amoon un professeur moom wax Seyni Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm mu doon wax euh, jeune homme, tu sais, la, sub, la subjectivité, mmh. ce n'est rien, l'objectivité, mmh. ce mhm. rien que de la subjectivité désintéressée. Moi, je dis en âme et conscience mhm. que euh, Sonko, xalaatuma ko ci loolu. maintenant maintenant buñ ko xalaatee buñ ko ragalee ci Ousmane Sonko nañ ko ragal ci parti yëpp parti yaa ngi dox kenn xamul fa xaalis su jóge parti yaa ngi dox musoo dégg parti bu dem déposer rapport financier nañ ko ragal si ñëpp ci APR nañ ko ragal ci APR dëgg la wala dëgg nañ ko ragal ci réew mi PDS ñoo ñëpp ñi ngi dox seen xaalis bu ñuy doxee bii sax man il faut gis nga parfois il faut applaudir indi nañu innovation mooy ne sénégalais jox leen ñu cotiser leen ngeen ngemb seen kii après mu dem uti uti uti pouvoir pour man foofu lañu war a yegg bu ñu fàttali ko en 2008 Barack Obama c'est comme ça qu'il a été élu c'est comme ça qu'il a été élu maintenant pourquoi pas sénégalais yi pourquoi lu baax duñ ko sénégalais nañuy bàyyi tout le temps bu ñu fu ñu dugal ñu dem politique te ñuy am ñuy am ñuy am njort bu rafet ci nit ñi parce que Sénégal lañ dëkk Sénégal lañ bokk te loo bañ rek ñu xalaatee la ko ci yow sa jëm mhm. bu ko xalaatee nit ñi te it gis nañ fii ñoo xamante ne dañu nekkoon au pouvoir di saaga ñu nekkoon opposition ba ñu nekkoon opposition demee pouvoir dañ leen dem di raamal il faut ñu def attention sénégalais kuy bañ na bañ nànk booy bañ nit bañ ko nànk booy xuloo nit xulowal nànk parce que àdduna dafa tëradi na defa tëre di ñu wax ci beneen euh, pàcc li nga xamante ne am na rebondissement muy le situation Covid 19 bi ak vaccin bi nga xamante ne Sénégal na mun na ko dugal fii ci réew mi ñu ngi naan euh, ñu ngi commandé mais ñu ngi xaar l'OMS homologué li nga xamante ne mooy vaccin bi Sénégal war a jël ñu gis ne aussi cas yi ñu gën a yokk lan moo ci sa gis-gis. waaw xam nga euh, deuxième vague mi ngi fii ñi doon wax nii corona amul ça n'engage que musuma ko gëm mais mi ngi fi la preuve ñi mu rey yàlla mooy rey mhm. mais cause bi si ñoom la te ñi koy wax c'est des gens assermentés ni diw corona moo ko rey man kooku laa gëm koo xamante ne xamul nu ñuy defee test ne ma corona rey ko bon gëwuma ko kii xam ni ñuy defee test def test ne kii corona ko rey kooku laa gën a gëm donc mi ngi fi. beneen bi gars yi sax ñu ngi ragal nii mu am beneen souche parce que am na médecin yi ne Sénégal am na 77 souches de de Covid 19 bi fi nekk. la mutation de la maladie. mutation bi am Afrique du Sud ba sonal leen mutation bu am euh, Angleterre ba sonal neeneen sax gis nañ ko ba euh, Gambie. donc nañ bàyyi nañ def attention ci loolu. et aussi vaccin bi. vaccin bi beaucoup de gens. waxoon naa ko si ñaari numéro yële mooy les sceptiques beaucoup de gens disaient que nii dafa am lu nekk ci ginnaaw wóorul nangam sànk mais man euh, dafa am benn kilifa bu mag muy Serigne Babacar si radiallahu taala anhu nee na bu ñu rëddee tere bi ne ku ko jéggi dee man Si Malick du ko jéggi duma ko gëm mhm. duma ko gëm du ma gëm ni ku ko jéggi dee waaye du ma ko jéggi ndax bu ko jéggee day nekk xaru nañuy def nañuy impliqué loolu suñu xel. xam nga vaccin bi day day faj ak du faj euh, bu ko bu ko ñi ko war a homologué homologué nañ ko jël mais lii kii sama xel rek mooy ku mel ni docteur euh, professeur euh, Daouda Ndiaye. dama leen dégg ñu ne nañ def ndànk parce technologie bu ñu utiliser technologie bu bees la gars yi maîtriser guñ ko te aussi am na ci dëkk yi que kii am na ñoo xamante ne dañuy am ay paralysie faciale yu garaaw. yoo xamante am na ay ay séquelles yi am. te aussi rek vaccin yi aussi euh, lii bi candidat yi dañoo bëri. il y a plusieurs euh, candidats au niveau. il y a plus de seize seize nekk commerce. seize benn concurrence. en fait on se dit on se dit li gars yi doon wax au début que daa am ñoo xam ne dañu bëgg corona bi dox. corona bi dox mooy corona business bi nga corona bi dox pour ñu defar ay ay kii parce que au départ quand euh, professeur Raoul avait dit aux Européens que ni li ngeen di def bu leen jël leen chloroquine ak azithromycine qui a montre son efficacité ngeen faj ko mhm. gars yi gars yi dañ na ko da ngay fontu on l'a traité de fou de tout de tous les noms euh, d'oiseaux mais il a il a il a eu en Afrique les gens se sont bourrés de se sont gavés de de de chloroquine après nous bu première vague bi on a géré. on a y a plus de morts chez certains qui n'ont pas utilisé ça mais ñoom ñu ne mukk il faut aller vers. la recherche d'un <laughs> vaccin d'un vaccin. moom il a toujours dit léegi nag vaccin ñëw na euh, président de la république nee na dinañ teg stratégie de vaccination nationale bon ñëw na on va on, vaut mieux se vacciner euh, que de ne pas se vacciner après nga feebar loolu loolu laa xalaat. à cause de la seconde vague gis nañu l' indi na yeneen mesure du l' du d' ak euh, le couvre-feu. couvre-feu bi nag la ñuy yem parce que deux jours yi nga xamante ne le Sénégal a observé euh, un couvre-feu gis nañu la population n'a pas accepté les mesures. fu nekk euh, les émeutes gars yi ñu ngi taal ay pneu ci quartier et est ce que tey jii nii bu amoon consensus en l' avec les populations est ce que tey lii dañ ci yegg. en fait man man personnellement ñaari yëf du ma ko du ma ko cautionné benn bi mooy incivisme ak indiscipline duma ko cautionné gi nga nit lu mu métti métti métti boo boo amee loola métti sax wax ko ci discipline wax ko ci discipline te it ñu nekk dans un état de droit teewul je di pas que je cautionne euh, euh, je cautionne tout de mais il faut dire tout tout ce qui se passe mu ñu nekk ay ay xale nekk ci dëkk bi ñu def euh, euh, couvre-feu ngeen génn di défier policiers yi di taali pneu di sànni xeer à quoi faire pour lan loolu je suis je suis foncièrement contre mais est-ce que est-ce que euh, les gens ont étudié euh, socialement cette décision bi il faut se poser par exemple je donne l'exemple la Médina xaw nañ ko xam tuuti Médina jàpp Colobane Gueule Tapée am na ay dëkk dëkkuwaay yoo xam ni nit yi fa dëkk il sont tellement nombreux que mënuñu desandoo dajandoo ci kër gi loolu c'est la stricte réalité bu am loo xamante ñu ñëpp xam nañ ko léegi ñooñu imagine toi ñu ne vingt une ngeen tëdd kër gu def trois boo xam ne normalement trois cent personnes ñoo fa dëkk léegi trois cent personnes yooyu si ñaari chambre ak kii la ak ak ak ak ak salon ak ak ñoom ñëpp bu ñu tëddee bu ñu duggee si kër gi tëdd duñu fa xaaj léegi ñooñu qu'est-ce qu'ils faire or que ni en en temps normal ñii dañuy nelaw yeew ñeneen ñu dugg nelaw yeew c'est comme ça qu'il se faisait c'est la réalité mais maintenant ñooñu noonu qu'est-ce qu'ils vont faire ils ils vont obliger ils seront obligés ñu nekk ci mbedd bi créer benn kii te les gens pour man euh, dañu dañu dañu dañu dañu war a utiliser euh, benn base euh, sociétale waxtaan ak sociologue yi ñu xool parce que gars yi xam nañ quoi. Mhm. xam nañ xam nañ ce qui se passe maintenant nag bu nekk loolu rek warul tax ñi ñi génn di taal ay commissariat de police di. dul d'accord mais quand même quand même il faut que l'État muy xalaat ni Sénégal la nekk ñiy décider ñuy xalaat ni Sénégal lañ nekk décision yi ñuy jël c'est pour de Sénégalais c'est pas pour de Français c'est pas pour de je dis pas que ci ñooñu la ñu seen décision mais décision bu ñuy jël ñoom c'est pour le Sénégalais et que Sénégalais yooyu noonu dañu am seen réalité déjà il faut dire que génération bu bëri ñu ñu ñu fekkeewul 93 musuñu gis couvre-feu 93 la la la couvre-feu mujj Sénégal 2020 lañ gis lañ gis tu couvre-feu donc ñooñu xamuñu luy couvre-feu ñu ñëwaat bon dund nañ ko léegi ñëpp xam nañ ko ñu ñëwaat beneen bi les gens amuñu fu ñu tëdd seen biiri kër fu ñuy def. dañuy génn ci mbedd bi boo leen bu ñu leen fekkee ci bunt bi dóor leen léegi oh, oh, ils vont se dire donc comme ñun miin nañ koñ bi boo ñëwee ñu daw wiiri jaar ni mais yooyu yëpp ay waxtaan utiliser chef de quartier yi lan la ñuy jëriñ bàjjeenu gox yi lan la ñuy jël la communication communautaire mm-hmm. li may dénoncer tout le temps mooy booy waxal askan boo xam ne soixante dix huit pour cent dégguñu li ngay wax nga toog ci télé bi di làkki tubaab ak prononcé da ngay nax sa bopp naxoo askan bi sa bopp ngay nax parce que li ngay wax sax passe pas donc il faut que les sénégalais reviennent à de meilleurs il faut que aussi l'État s'adapte aux sénégalais ñu des si santé bi bii yoon dañuy wax ci beneen feer bi nga xamante ne Sénégal combattre na ko bu mu jógewoon fii ñu gi ñu ñu gisaat fan yi ñëwaat na fii ci région de Thiès muy grippe aviaire bi nga xamante ne rey na fay espèces yu bëri mhm. ñu ngi naan sax euh, façon bi nii dafay yomb pour mu yegg si nit mhm. euh, est-ce que tool tool tamit euh, beneen problème ñëwaat na hmm, s'ajouté ak Covid 19 xam nga grippe aviaire ak Covid 19 lu leen utalee lu leen lu leen boole mhm. c'est des zoonoses zoonose mooy feebar bi jóge ci animal dem ci nit loolu mooy zoonose mhm. maintenant euh, fu ñuy sante yàlla maa ngi dégg euh, docteur Mamadou Ndiaye mhm. euh, directeur de la prévention ministère de la santé mu ne def nañ ay test mais yëpp négatif mu wax ko nekkoon en contact yëpp nit yi ñu kii yëpp négatif la ba pare Ali Saleh Ali Saleh Diop di le ministre de de l'élevage Euh, dégg naa ko ici aussi euh, sur euh, benn rajo de la place mu expliquer ni fii affaire yi amoon ñoom jël nañ matuwaay ba ba tëngu ko ba bett yu mu kii ñu rey ko enfouir ko parce que yooyu bu amee. doo ko lakk mais da nga koy enfouir da ngay gas ba mu xóot. nga suul ko fa. te loolu aussi xajul ci Sénégal. xaju fi xaju fi ñu ñaan yàlla loolu yàlla na yàlla na yam foofu te it. ñu xalaat ni ñu ñu jàpp ni dañu war lu ñu waroon lu ñu jëloon jëloon lii wala euh, li lu ñu jëloon ci matuwaay rek nañ ko dolli parce que bu bu affaire yi di jël fu fële fu ne day fekk yow nga nga jël say matuwaay waaw ñu ñu jeexale ak li nga xamante ne depuis démb tiital na wala kere na fi benn zaaru panique au Sénégal ndax suñu doom la euh, suñu rakk la kii di jaari soo bi nga xamante ne demoon na fële ca France yeggali jàngam nekkoon deux fois meilleur élève aussi du Sénégal ñu gis ne depuis cinq jours elle est portée disparue mais tey loolu noonu du inquiété davantage xale yi nekk foofu noonu di jàngi foofu. waaw dina inquiété wax ma ñu nekk foofu ñu nekk fii sax dina inquiété parce que jaari quand même symbole national la quand il faut il faut l'avouer jaari sow euh, dëkk mbuur nekkoon élève fële ci école scientifique bu nekk euh, lycée scientifique bu jurbel mhm. elle a été deux fois meilleure élève du Sénégal ba muy def première ak ba muy def terminale mhm. euh, tout récemment ñëwoon na Sénégal bind benn livre euh, bu bu lii amee ñëpp njàkkare lay am ci Sénégal parce que suñu doom la suñu raq la suñu jarbaat la Euh, mag la si ñi gën a ndaw sax raq la si ñeneen ñi mi li am ba am mooy il faut que sénégalais yi euh, état du Sénégal moo ci mun dara fu mu toll nii ñun ñëpp dañuy ñaan rek ñaan la ñuy def yàlla musal ko ci bu nekkee euh, ay la bu nekkee feebar la bu nekkee dañ ko yàlla nañ ko ci yàlla musal te état du Sénégal comme ni ancien ministre de l'éducation nationale di parrain ma muy Serigne Mbaye Thiam c'est le parrain jaari Diary euh, ndax ay waajuram diñ ko ko dénk euh, ñu ñu def lu ñu mën ba xale boobu nga xamante ni Sénégal wéq na ci ay mbaggam yaakaar wékk na ci ay mbaggam yaakaar mm-hmm. euh, ñaan yàlla rek ñu def lépp lu ñu mën ba kooku Diary Sow ñu gisaat ko mu nekk ci jàmm ba ay woy woy juróom ya nga xam ne j'imagine que tëddatuñu nelawatuñu lekkatuñu naanatuñu ñu mën a euh, retrouver seen fii parce que aussi pour borom kër pour ku am doom euh, imaginer rek nii sa doom réer na kenn gisu ko ci dëkk jàmbur en plus jours depuis cinq jours loolu si si catastrophique loolu dafa war a métti di ko ñaanal yàlla rek mu dellu si ak jàmm di ko ñaanal yàlla mu dellu si ak jàmm ñu koy ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi si tolof tolof fii la ñuy jeexale seen émission set set di leen daje beneen semaine ak beneen numéro jërë ngeen jëf